ñu tëjee ak Omar Rew ndey ndey tey tey tey ñoo niroo solu ndey tey ñoo dem Arabie Saoudite nga ak ak ak feej. waaw tey foofu laa dem moom. waaw ah, ànd ak sama cousine rek sama mag. moom man kanaa gisoo ma man man gisoo ma de. Ah, kii na de rafet na jàllaa bi nga sol dëggantaan sax ah, waaw. day jàllaa <laughs> baal tooñ na xam nga tey moom yaa yow yaay provoqué. waaw kii xam nga ku ma ko jaay. waxoon naa la ko démb sama xarit boobu bi ma tase ak yow. Adam Sarr Adam Sarr moom madame Dramé ak Khalifa Dramé jëkkëram. moom dama ko waxoon XL. waaw mu juum moom déggul baax mu def double XL. triple XL waaye man lii mu lii mu nekk li mu yëmbax nii moo ma nekk. rey na la man lii moo ma nekk man du yëmbax. rey na la reyu ma de. rey na la ndey billaay reyu ma de. rey na la dafa jaarale ndey xam nga lan rafet na ndey. rafet na kay rafet na kay. moom kay gudd ak kii bi rek la ñuy jox ku mu nàkkari nga tàngal gaz nga toog. ak ñàkk pexe du benn. Eh, lii dafa dafa rafet ba bëgg kon dama koy remercier euh, moom tamit moo ma abiyee sama sœur la Adam Sarr euh, madame Dramé chéri xalifa Dramé mi ngi fi cité jàmmalaay képp ku ci bëgg rek boo ma woowee ñu jokko dina la jaay bu rafet Omar nuyoon. Eh, nuyu naa tout le monde nuyu ñëpp nuyu naa képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi di nuyu waa Sénégal ak li ko wër ak. fii e ci fii ci e chambre Badolo. na ba pare kon uh, soxna jaareetu dam lay bàyyi nga nga nuyoo. ndey maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi di nuyu Omar. di nuyu Sénégal di nuyu àddina wërngal këpp di nuyu nag waa Këwoon ga ma jógee. Mhm. di remercier ki nga xamante ne nag mooy Sophie génn ci grand boubou bi nga xamante ne mooy tube léger bi. nekk fii ci zone de captage kooku soxla da koy fekk foofu. Mhm. légume à part couture à part kooku mooy laa Sophie maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam. dëgg la. Mhm. Amar actualité la ñuy ñëw comme toujours rek njëg yi nga xamante ne rek le président euh, Macky Sall wàññi na ko. tàcc wàññi na ceeb. waaw wàññi diwlin wàññi yàpp ceeb yàpp dee waay gën a nekk. ceeb bi wàññi na ko wàññi diwlin. Mm. wàññi meew. wàññi suukar. njar ku wàññi meew kay mooy wàññi nga njar. waaw te Macky Sall billahi wallahi taala Macky Sall xam nga lu ma nekk. waaw man mosuma gis Macky mais dama ko bëgg sama biir xol. war na laa de. Macky Sall dama ko bëgg man de man su nag dee na nag Macky. ah di dee man Macky dem ma neeg rek. Eh. na ceeb wàññi diwlin ceeb bu yàpp delluwaat na palaasam. Ah. ku mu nakari. Ah. wàññi bii ku nga tàngal gaz nga toog ci nga rii. <laughs> ko waxoon. si ah. loolu. nday li ma ciy tontu lenn la. neex rek yokku daa war am sax ba wàññi di am. li ñu bëgg xam nañ ko troisième mandat la ñuy war waaye loolu kenn du ko laal kenn du ko jege te kenn du ko tudd. mu naan wàññi wàññi ñaar dërëm wàññi juróomi dërëm loolu daa tax mu naan wàññi ma kii dafa eh, ñeme yàlla de nag ma déglu laa wax a a déglu kii bu yàq politique Macky Sall naan yow amoo dara la da nga koo tàyyi nañ njëg yi cher na euh, fayu école bi euh, metti na lépp daal bu ko wàññee wàññeewoon dañ koy sant di ko gërëm di wax mu gaaw ah mu gaaw waaw ndey waaw ndey waaw ndey lii ma lay wax nii ndey yéegalal yow nii laa ko bëgg ndey ndey waaw billaay wallaay taalaay Macky Sall wàññi na ak doole ku mu nakari ku mu nga tàngal gaz nga riij man maa ko wax ku mu nakari yéen opposition loolu moo leen nakari Macky wàññi na gaz wàññi na lépp <laughs> na diw yi Macky Sall ah, dafay def troisième mandat. dafay def par dafay def deuxième mandat day def deuxième mandat. c'est pas la peine yaa tey. moo waaye moom du wax wàññi làmmiñ fan la am wàññi làmmiñ amul sens. wàññi boo xamante ne ci làmmiñ la yem. yaa ñeme yaa wàññi bi ci làmmiñ la yem. mais bi pas dinañ appliquer bi pas moom diwlin cher dara yombul ngeen naan wàññi fii lan ngeen fi wàññi wàññi làmmiñ taxul ñuy wax troisième mandat ngeen di ko waaye taxul ñu am bu fi daanu déedéet bul daanu bu fi daanu bu fi daanu bu fi daanu. damay daanu yas si dee. sàll rek moo mën a yëkkati. bul daanu damay daanu yas si. déedéet bul daanu déedéet bul daanu. wàññi na la waaw wàññi na wàññi na